jaajëfal leen bu baax a baax mbokki internet yi safoo lu info 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi. ñu wax ci lu soxal communiqué bi nga xam ne jóge na ci plateforme bii Lacos ñoom nag gannaaw bu ñuy ñaawloo verdict bi nga xam ne cour suprême joxe na ko te avocat bi di général Ousmane Diagne daal di ko joxe waaye tamit doxalin gi nga xam ne régime bu Macky Sall ñu ngi koy doxalee ak itam retrait bi nga xam ne def nañ ko kii di conseillère bii di Aïssata Diallo Ba waaye bu juge bu Ziguinchor bi nga xam ne kase nañ ko ba mu noppi daal di ko neenal yóbbu mbir mi nag uh, ci uh, tribunal bu grande instance hors classe uh, bu Ndakaaru ak nag bañ a jox fiche de parrainage mandataire bu Ousmane Sonko loolee nag nekk na loo xam ne ñoom wàlla kos daal dinañ ko ñaawlu bu baax a baax ba noppi daal di yëkkate ay kàddu nag di félicité ñi nga xam ne ñoom ñooy layoon Ousmane Sonko rawatina ci liggéey bu muccaay bi nga xam ne ñoom ñoo ko doon amal ba noppi nag xam le ni nañ yaakaar ne dinañ ko wéyandi ba am résultat bu baax lakos di félicité kii di Ousmane Sonko ci tànneef bi nga xam ne def na ko ci Bassirou Diomaye fay ngir rek mu mun a tàmbali li nga xamante ne moom mooy collecte de parrainage citoyen ci noonee nag amu ngay woo askanu Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom ñooy militant ak sympathisants yi ngir nag ñu booloo doon benn waaye tam demandoo nag ngir wuuti parrainage ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye ngir nag may ndam kii di Ousmane Sonko union ni nak ñom lakos tu ñi ngi wo ñi nga xamne ñom ñoy militants yi batay ak sympathisants au Sénégal ngir rek ñu mobiliser wu ngir mëna continuer li nga xamne mom moy combat bi ñu tambali waye tam ngir candidature Ousmane Sonko mu mëna antu ndax nak xamne nañ ne ki di Ousmane Sonko mom moy sen candidat ci élection ni ki ñaar fukki fan ak juroom ci wéru février 2024 yi ñu dëgmal ngir nak ñu baña salfañé ak ak yelle fam waye tam mu mëna atté ay droits civils ak politique la COS nag di leen di jox euh, rendez-vous ci ay fan yu ñu dégmal. de vous liker et surtout de vous partager. Merci.